publique la moi j'ai dit. Mhm. je ne pense pas parce que je suis de l'APR. oui damay wax lu neex ni ñi te teguma ko fenn. non loolu moo tax ma bëgg nee ne franchement je euh, dis non non. Mhm. Mhm. par là s'il vous plaît. moi je lance un appel. aux autorités compétentes de parler aux Sénégalais. très bien.

grand laay sénégalais débat ula lañ bëgg peut-être waaw di xeex li tax du parce que dama ko xam yaru euh, yaru ci kanamam grand yof du loolu hmm. c'est parce que peut-être comme ni mu ko waxee dafa mesurer dans ses propos ah bokkul ci ni doon wër plateau yi ah naan la justice il faut respecter la justice yaa ngi dégg Ousmane Sonko respecté wul justice la loi force reste la loi. la moi, loi moi, je suis, moi je suis pour ça. non moi je l'ai toujours ma ne ma ne peut-être que tey peut-être que tey si c'était non parce que aussi il a le droit lui d'être mesuré et je le connais toujours mmh, mesuré ah mmh. je l'ai pas vu faire les plateaux à l'époque dire voilà justice justice parce que tey su ko defoon démb tey peut-être on serait là à se tirer les tunnes yaa ko waxoon démb tey il faut respecter la justice moo tax ma ne la peut-être que. na Sénégalais comprendre ni ce n'est pas parce que. dañu xamante. ak ñi fi nekk nekk ay kilifa moo tax debaa bi posé c'est parce que c'est une personne mesurée bu nga xam ni boo xam ci parti taxul mu wax loo xam ni ah suba daf koy rëccu wala daf koy kii am na ñoo xam ni nag ñoo ñu ñoo waroon xëy na toog fii tey ci plateau yi ñu doon wax naan justice décision de justice quel soit lu ci nekk ñun ñu d'accord ak d'accorduñu ñu ne d'accord c'est pas normal ñoom ñu ne dañu war a respecter justice ñu respecter wuñ justice ñun dañuy manque de respect à la justice on ne on respecte pas nos institutions même quand Ousmane Sonko parle on lui dit da ngay tudd ay magistrats da ngay def lii da ngay def lii mais ñooñu tey ñoo war a ñëw wuyu sénégalais yi toog ci banc bi wax nit ñi. Mhm. lañ doon défendre démb. tey décision de justice jóge ci même justice bi nag. Mhm. ñu koy këyit këyitee ay DG e naan. waaw ak déet ak suspensif ak pas suspensif c'est ça qui est honteux mais nag xam nga moom on est dans pays où fii nit ñi mhm. li ñuy def toujours dañ koy trouver lay tu trouveras toujours des gens yu nga xam ni dinañ la justifier ce qu'il il faut que les, les, les la DGE parle. Moi, je considère qu'elle a parlé. a, elle a déjà parlé. Parce qu'elle a fait un communiqué. Elle, a fait un communiqué à tout le monde et on n'attendait même pas de la DGE de faire des communiqués pour répondre. Parce que la DGE n'a pas à se substituer à l'agence judiciaire de l'État. DGE, du moment moo war a wax au nom de l'État. dañ ko war a ne defal mu def war a dañ ko jox ordre. ne ko defal dafa ni comme ñu ne police. léegi police day commencé. Mm-hmm. police day commencé ñu jàpp un exemple tout bidon. li DG def ñu jàpp benn délinquant ne ko yow da ngaa def nangam juge bi daan ko mu jógee ñu yóbbu ko ca commissariat ba commissaire bi ne noo waa ji du ko jàpp ndaxte <laughs> dafa def appel ah l'appel le, le jugement n'est pas définitif on ne peut pas arrêter l'individu là euh. mais quand on commence maintenant l'administration se permet de discuter et de ne pas exécuter des décisions de justice ma c'est extrêmement grave te loolu yëpp nag lan moo ko fi indi nañ wax politique parce que loolu moo ñu fi indi parce que lii yëpp politique la hmm. Hmm. justice administration lii yëpp politique la y la volonté d'un homme de rester au pouvoir et de de prendre le pouvoir et la destinée des Sénégalais li Sénégalais yi bëgg mu jël ko confisquer ko président Macky Sall dafa bëggoon troisième mandat nit ñi nekk ko d' accord. mais mais de rester au pouvoir s' le voulait. peut-être dina doon forcer pour troisième mandat mais mënu parce que il a essayé. Hmm. tey mu ñëw teg un processus parce que c' est extrêmement important Aliou. parce que ce qui se hmm. passe là musul am euh, politique. du Sénégal mooy un président qui part mais qui reste jusqu'au 24 février et qui est censé partir le 25 la preuve wane na ko. wane na ko amul benn indépendance le le premier ministre aux frais du contribuable au nom de l'État central au nom de toute la République mais fait campagne et ça ne gêne personne pendant que d'autres candidats sont empêchés. il est en tournée économique. ñeneen ñi dañuy dem ay ñoom Malick Gakou dañoo dem ñu arrêté leen. di ay ñoom Bougane ñu arrêté leen. Hmm. di dal ci seen kaw mais moom. de il a une longueur d'avance voire trois longueurs d'avance li seen saal yi wax dëgg la impopulaire. amoo sañ-sañu demal sa bopp mais bàyyil sunu état bàyyil sunu administration demal ni sa nawla yi demee nga jàkkaarloog sénégalais yi librement nga def sa campagne c'est ça qui est normal et c'est pas c'est pas fait parce que y a un système y a un président qui te dit man maay créer le man maay choisir sax le pôle parrainage les régions se tiennent au palais de la république au palais de la république bu ñëpp bokk. le palais c'est son domicile aussi. c'est son domicile Ouais, il euh, n'est pas candidat. Il, est président, il est président la Il n'est pas candidat. Il a les deux aussi. il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. Da nga a dem. Bokkul am nañu permanence. Son pas la il doit faire les choses au niveau de la permanence. ce n'est pas normal. le président s'il veut qu'on le respecte parce que le président c'est une institution. Mm-hmm. Ni ko magistrature nekkee. Kon président fii mu toll mën nañ d'accord mu far APR. mais war na mën a toog te dee njaaxaanaay ci li ko fi dese génne loxoom ci administration bi génne ko ci justice bi génne ko ci jeu politique bi bu ko neexee nag mu faral candidat am ci suuf jàppale ko ci suuf am nañu seen permanence mais suñu palais de la république pour une fois pour une fois ñu ne kii ne ci palais bi kat bokkul ci élection yi kenn terewul il est encore président aussi. mais il est encore président mais heureux mais, mais encore heureux soit encore président parce que sinon on se plaindrait pas mais il est président il est candidat il est président et candidat c'est ça le problème il serait que président ñun ñëpp moo ñu yilif mais tu ne peux pas dire bokkuma ci jeu bi damay dem mais man maay man maay coiffé bi may téye loxoom may joxe nguur gi dem sax ba naan yow nguur gi bés bu ñu ko ñàkkee c'est la catastrophe teg niveau bi foo xamante ne on sort de la démocratie on n'est plus en démocratie on n'est plus dans le jeu électoral Parce que le jeu électoral, il doit être loyal. Loyal pour tout le monde. jeu bi dañu war a bokk ñëpp war a bokk. très bien. ñi ñu jël ay fiche normale mhm. mhm. président bi atte même su fekkente ne am na fu mu far. mais terewul administration bi nga xamante ne dañu war a exécuter les ordres. Mhm. moo xam justice sa jóge moo xam fu mu mën a jóge rôle du nekk fii di def instabilité suñu réew man dama ni. le volet un. parce que moi déjà je n'ai plus confiance. à cette DG. on n'a jamais eu confiance on a toujours demandé une autorité indépendante mm -hmm. mais demoon nañu ba ñu tënkuñu ñu jàpp ni wone nañu ñoom à chaque fois dinañ def preuve de dépassement parce que c'est l'administration mais là les actes qui sont en train de poser là ça jette le discrédit ci seen personne foofu lay tëjee pour wax ne ça jette le discrédit foofu lay tëjee pour wax ne parce que dafa am wax lu am solo mu ne sànq gëm sa bopp dañu dundoon plage kii boobu mooy ñu bloqué leen mm-hmm. Euh, am candidat yoo xam ne jàpp nañu ni int kon concerné wu leen Serigne Saliou wax lu am solo. Mhm. ne la bi dafa dëgër. oui. Euh, loolu kese moom mi sax grand laay mu wax ne euh, c'est normal am na ñoo xam ne dégguñu leen parce que dañ waa Pastef fi dañoo téye seen parrainage. xam nga soo demee ba nangul un parti wala un groupe wala une entité. Mhm. que téye seen parenage tax na parenage bi sooxe. Mhm. kon nangu nga nit ñi am na lu ñu tekki ci mbir mi am nañ poids bu ñu am. parce que seen ñàkk gum départ prip tax na ba mbir yi ne katakem bi kon ça veut dire que une majorité. oui mais amul benn de mesure également. la démocratie c' est loi de la majorité. la démocratie c' la loi de la majorité. élection nga koy xamee dem. Nous, ne demande pas de non, coup d'État. On ne demande pas de coup d'État. On demande. so ma ma daaneel juste foofu pour mhm. wax ne. soo mhm. gisee ma bëggoon embrayer foofu c'est pour demander. Mhm. à la classe politique. oui à l'opposition et terminer par là. de se secouer. parce que c'est bien beau hein. moi je respecte tout le monde. opposition comme pouvoir. de se secouer lan nga bëgg ñu def. may mun a nga mooy lan. ces là.